benn desee ñu ngi ko téye ñu dema buñ ko koolee moo ñëw uyu moo jël dawa raydam bi ba ñëw ba fii bon at the end less moo mu tañi bi kool xaritam pour mu ñëw jël ko parce que it's already weak ñu kii every day dañ ko dee kool pour mu jooy xaalis every day mu ngi jooy gay xaalis at the end dem ba xam ne xaalis du solution mu soron na yow léegi nag yow Sadio suñu téyee yow da nga jël bi léegi ñu doy liggéey rek dee jooy seen xaalis bi faram bi la ngay dox Gardien bi sax mënu ko yóbbu dafa ko ko ñëw jël si xaritam fii ba balaa bi ci wan awa mu dee si bi an kii doom bi am jabar lii la am Gambien ñaar doom la am doom bi am na ni les intrigues la am kii mu ngi liggéey very kambasi ah mu ngi am sob mu ngi fay taxe mu ngi fay luwaas everything waa marché bi mënut a am jaama si police yi ay ah, witness la moo fekkee gars ñu ngi ko taga nii ñu ngi ko dóor ñoom ko remuwu ñu ngi ko dóor bi yëpp Nous nous avons ñoom ne ñu ngi gis gaay as ñu ñu ngi am ñu association si marché bi ñu ngi def lan si nous yëpp ñu ngi fay suñu texte bi marché bi nous dañu am association mais foog ay décret You don't tell them so that the people will tackle situation. nous nuguma leen suma kër mooy dañ ma arrêté suma kër dañ ma arrêté suma kër antiwalaay dañ arrêté wala dañ sacas billahi wallahi tallahi fourteen thousand dollars lañ fekk tabu xaalis boobu bari man xam nañ ma xamee ma ba léegi maa ngi dem ñoom koor ñu ngi suma der ci biir koñ ji ci dara bu ñëwee da ñëw palpe da ñëw sàggat di su ma bagage yooyu bu ñu xamee ne dama jël looya bu ñu xamee ne dama jël looya ñu delloo ñu commencé di ma kool ñëwal jël si sa bagage yi Ousseynou ñëwal jël si sa bagage yi na bagage yoo xam ne ba léegi mu ngi fi te la ko dee wax ñoom seen xaalis seen poos rek góor gi bu poosam rek la moo liggéeyal su lay bay daf laa ne toppatoo li ngay toppatoo wala wax ma business man bu mag koo dee jëndaat soo ko wàccee ma bàyyi la soo koy wàccee rek mu bàyyi la ñun nii la ñu bàyyee man moom man aus at suma beneen njaay lañ téye kooku ñu fay loo ko sixteen thousand dollars yi billahi wallahi taala ma ko ten thousand dollars suñ la arrêté next minute dañ lay jël lu nekk sa pocket day tekki dañoo sañ sa mobile bi yaa ngi understand after all dañ la day xam ñu xam la nii ba pare ñu laa dóor yaa ngi understand ah wala ñu jël la xoolal nii la ñu tëddee nii loolu la day taxal ñu aju ñu def la ndugub ñu def la ndugub ñu dóor la root ana suma wante lan ngeen xam si ku ku ku dee nii kii nii kii nii xoolal kii dafa over payos kii soo waxu du wax yaa ngi understand kii soxlaam rek soxlaam rek yaa ngi understand soo ñun dañ soona yaa ngi understand booy Richard situation ni Palma bi suma booy bi cause na ma ko gaay rek Richard ni situation ni Palma yaa ngi understand booy dañ soona

ban liggéey dañ leen di téye. ñoo leen bëgg a téye seen ndey. ñoo leen bëgg a téye téye leen baat yooyu te bañ ñu dund. ñoo leen ma ne yéen téye leen doon tëgg seen ndey ñooñu. ñoom tey doomi xaram yi. ban lii ñoo nekk fi jërëjëf dafa nekk. bilaay walaay talaay baay. Basi Basi. bilaay walaay talaay moom la nga dundee kër gi. ndax nga sama ndey. bilaay walaay talaay. moo tax loxo bi jaar. loxo bi jaar solo bi. moom moo génn la live moo génn wax ko live Pause démb man ak moom Pause sama doomu day friture yàlla waaye man yaa ilaha illallah booy Pause non Pause ko am ku bëri responsabilité yaa moom rek yaakaar ci kaw àdduna démb démb école la ko da kool mu ñëw fii nine o'clock mu woo ay mbokkam naan nañ ko ñëw di tëj ko ose den lu garaaw man bann yaa ngi dëkk li ma gis ci lii fa mu nar a jëm du baax bu ko saf tax ñun doomu Gambien la ñun suñ famille bi yëpp a ngi fii because ba nekk ci dëkk ba am fa juróomi doom juróom benn doom am fi kër kooku yow Gambien mais marché bi leen tëj dañ ba marché bi ñun suñuy famille la ñuy liggéeyal di daan doole ngir ñoom andi bàyyam bu ñu la jàppee day métti dinañ la dootu leen jël sa alal bàyyi muy loo xam ne lu métti la dafa am loo xam ne na ko Gambia stop aus tay rey nañ ko tey mu ngi nii loolu moo ñu métti bi ko sax booy dund dara weesoogul la mais lii dafa métti na ci Gambia bi jóg dimbale ñu ñun ay ndaw lañ dañuy liggéey di yóbbu suñu famille yaakaaruñ kenn ku dul ñu ñuy liggéey di daan moo suñu doole lii maanaam tey boo jàppee sàcc nga ba sàcc kii bi sàcc bi ngay bàyyi bàyyi sàcc bi tey gi nga xam ne moo dënd Ousmane moom du doon moom dee tey sàcc bi dem na Ousmane moom dee na lii moo ñu bëgg ndax dañ ko fee ko fee wax wax nañ ko am fi ñu fi téewoon ay 7 days ay 10 days ay yeneen ak days du kii rek yeneen ak yeneen am na ñoo leen dóoroon last year ba tey ñooñu ñu ngi go with the trauma of that right now du kii rek is yàlla dafa def ne yàlla ko yàlla yërëm aus xamoon ko comme si kii la affaire si claté waaye anti crime dañ yaa ngaa def lii di la téye dóor la laaxa la béyloo la def la comme jaam soo peree doo am phone booy wax ak sa gars yi doo mën a communiquer. yaa ngi naan fii si du si kii rek la em du si kii rek la mujjee understand nga loo min understand soo anti yaa ngi seen la woon. dafa yàgg a nekk si jikko du du tey te lii dafa yàgg a dox depuis anti crime bu establishé more than two years lii mu ngi xew si dëkk bi moo than hundreds of people waaw xam nga ñu ngi foo situation even suñ deewutee sax am na ñoo xamante ne leen dóor. After children buying, they don't get their life back into order. Understand that they, in our society. am na gis ñoo xamante ne comme man dama ko gis man maa fi woon def naa fi one day tëral leen ma si sel boo xamante ne moo doon almost seventy people dafa nekk te amoon na fa benn booy si suuf dañ laa di ko ko dóor di ko dóor di ko dóor understand nga lu ma mi so lii dafa yàgg am si dëkk bi work towards the maintenance of peace and tranquility in this country. Why? It is in our collective best interests as individuals, as groups, as communities and society and nations to preserve the peace and tranquility of this country. Conflict, conflict repercussions we should learn from the mistakes of others. We should not learn from our own mistakes. Let's draw lessons from past errors committed by individuals that led to what we call a civil war or crisis in those countries. Gambia, we cannot afford to have a conflict. Why? Gambia we interrelated. The community is interwoven. Gambia is one big family. Well, let me still to my let Listen, like I said from the word go, we are not here to exercise force against anybody. Because I want to believe I can engage you in a constructive discussion. I can engage you in a very constructive and honest discussions. You know, Thank you.